jërë ngeen jëf mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax di leen jox seen wàccuwaay tey nag ñoo ngi waat fii bi paasal seet si ki nga xamante ni mooy Ardo Ardo mbokk yi moo doon bëgg Sabaa le 23 bi passé di samedi euh, mu nekkoon combat espoir boo xamante ni combat bu neex la nekkoon combat boo xamante ni ñaari xale yoo xamante ni dañ cee woon wane seen bopp waaye mbokk yi Ardo am na ndam ci ki nga xamante ni mooy mooy mooy Sabaa daan ko jël bëri boo xamante ni képp ku nekkoon stade gis nga bëri xale yi xeex nañu bëri nañu dañ bàyyi ko mu nuyoo ñu dugg ci kombaa bi ak après combat bi ak après fan la jëm Ardo nuyu naa la. waaw ah, ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay Ousseyn di fay waa wasaare bi yëpp di fay waa monde entier waaw rawatina Sénégal rawatina Dakar PA golf sud incha allah waaw ñu ngi bëggee ñëpp. ñëpp ñu ngi seetaan daal waaw loolu moo nekkoon kàddu nuyoo di sant yàlla bu baax mhm. si ndam ñu defar ne ko xeebuñu benn yoon waaw moom suñu boroom yàlla na xeeb te dolli. Mhm. waaw ndax jàmm jàmm bu santee ñu dolli ko ñu sant nañ bu baax a baax a baax di xaar mu dolli ñu. Mhm. waaw suñu boroom jërëjëf. Euh, maa ngi maa ngi daa mel ni Laurent moom woo de waaye bàyyi lañ continuer ba noppi. Euh, dama bi nga dugg si stade. ñu ci bëri dañu doon félicité teel a ñëw bi. Mm. balaa daal di xew ñëpp keroog dañ na tàccu ne dañoo kontaan parce que Ardo da daan ñëw ay cinq heures et demi six heures. mais ka ñu gis da nga teel ñëw lan moo waral loolu. waaw làmb la rek lañuy waxaat tamit. làmb la rek xam nga boo dee ànd ak euh, say mbokk. Mm-hmm. ñu am lu ñu lay interpeller chaque jour nii da ngay tardé da ngay tardé du si ñun nag. Mm-hmm. wante buñ soñoon heure yooyu lañuy ñëw chaque jour. Mm-hmm. waaw moo keroog nag loolu dafa bokk si lu ñu souligner souligner souligner souligner ba ñu xam ne loolu noonu ñu xool nuñ ko organiser ba dootuñu dalati daal waaw looloo gën a tax ñu teel a ñëw. waaw mais ñu gis la nga ñëw euh, teel a ñëw commencé di def say bien li nga andi woon ci gàllaaj ñaata nga fere ci làmb ji. non man nag làmb ji bu dee gàllaaj man du ma fere dara du fere dara si gàllaaj quoi. ah mais noo noo noo ci jotee li nga andi dafa bëri. maanaam sarax yee gën a métti sax non parce man ñi ma yàlla boole ñëpp. Mhm. maanaam man ak ñoom xaalis boole wuñu quoi. ñii samay papa lañ ñii samay nit lañ ku si mel ni Baye Jiili. Mhm. kooku suma nit la day yëkkati comme combat chaque combat. Mhm. bu ma ñaanalee ba day yëkkati deux cent mille jox ma ko te xam na nu ma mel si xaalis man bu ñëwee rek dama koy génnee joxe génnee ko joxe ko. Mhm. mais day yëkkati day def may jox xaalis. damay mhm. jox xaalisam. barki suñ Fall ne ma ne ma lii nii booy dinaa leen jox ñoom wàllu ticket yi mais yow lii dama bëgg nga jëfandikoo ko loolu laa bëgg loolu lañ ma pour di ma nax pour ma mën ko téye def ko sam bopp ndax xam na ne man lu ma yor rek. da koy waat mu ne ma lii na dama bëgg nga jëfandikoo ko. nga siy jënd yàpp di lekk ak sëñ Fallou. su mel ni Baye Djili sëñ Abdou Mbaye waaw di di nuyu waa Louga yëpp jàpp nañ si su mel ni xam nga saa Touba moom tamit daf ma daf ma daf ma yërëm ne ma si li nga jógee moo tax yëkkati xaalis bu bëri jox ma ne ma maa ko jàpp si sarax yi damaa rus sax ba may génn xaw ma nu ma jaar. parce que tamit mooy loolu xam nañ bu baax ñaan yombul. Mm-hmm. su mel ni Matar Matar ñoo bokk mbuur xam nga mu nekk suñ kilifa bu baax a baax yàgg nañoo ñaanal mais mm-hmm. mosul woon ñëw stade. Mm-hmm. mais dafay gis ni moom chaque jour bu ñu joxee rek xam nga ñun rek mooy loolu dañuy jël lépp xëpp ko si géew bi rek dem mu ne mu ne yow da ngay foowee la mais bii paa man maay ñëwal sam bopp. incha allah. ma ne ko waa kon voilà kon ne ko kon bàyyi naa lépp soloxo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñëwuñu bëgguñu ñu ñu tudd bëgguñu sax ku leen tudd ku si mel ni Cheikh xam nga taalibe Cheikh Ibrahima ñas ku si mel ni Ibrahima bu nekk euh, Sokone xam nga xam nga yaa ma yaa ma wax loo nat man dinaa wax. ñooñu bëgguñu sax foofu sax waa Saalum bëgguñu ñu sax ñu ma tudd leen. ku si mm-hmm. mel ni El bu Dieng. Mm-hmm. ak waa ñoom Dieng Kayre ñëpp wax dëgg fa yàlla parce yaayu Mbagnick. non mais defal ndànk. yaayu Mbagnick dafa ñaanal yow mënoo bëgg mënoo bëgg daan la. su combat bi ñu di jàppaat ci combat waaw parce que tamit gis nga combat boobu li ma daan si la li ma li ma daan. Hmm. maanaam li ma daan soppe bi sopp bi ma leen sopp si la bokk. ndax boo gisee amul dara ba sama diggante ak ñoom bëgguma woon mu ñaaw daal. ngir maanaam mu ñaaw nga xeex ak ñoom bëgg ak ñoom toll waaw parce que parce que parce que Diène Kaïré dafa nekk nit ko xam mësul bëre kenn ko bëgg su bëre kenn te man supporté wu ma ko mësul bëre kenn te dew ma stade. amaana loo xam nga rek bëgguma woon suñu diggante ñaaw quoi ndax sopp bu ma leen sopp fan seen fans laa quoi. Hmm. loolu moo jiitu woon ko ma ma war a bëreeg ñoom mais làmb moo ñu boole woon ñu remplir yëpp te ñaawul comme que ñaawul rek waaw sant lu nekk xañ na si. yàlla dogal xamante am si. am am na benn kàddu boo doon wax. ci ci ci vert ba loolu lan la woon gannaaw loolu yëpp jàll na. waaw bi mujj na ma ko jox sax. Ah, <laughs> ah, moom laa doon jël si te jox na ma ko. Ah. ndax ñun suñu couleur waa Kaw waa kii Kawsara waa Xayra hmm. vert noir blanc la quoi. ok waaw vert bi jël naa ko damay wër ku yor blanc bi ak noir bi moom laay wër fu mu toll nii. Ah. <laughs> waaw ñu gis ne làmb ji. Euh, na daan ñëwee sa combat yee lu bëri dama gis nga wàññi ko. lu ma gis lu ci bëri dama gis nga basé ko ci wàllu mystique. ba ci tuus sax danaan gis aar daan andi tëggatam répété mais yooyu yëpp gisuñu ko open press tam gisuñu ko lan moo waraloon loolu ci combat bi. non pourtant suñu tëggkat répété nañ li ñu war a répété lépp xam nga. Mm-hmm. wóor na yàlla pour neexal stade. Mm-hmm. mais xam nga nit day bëgg rek. mais yàlla mooy nu muy demee moom suñ borom rek a koy décider quoi. Mm-hmm. nit day bëgg rek la am ak sabablu. répété nañ li ñu war a répété tëggkat yi fay nañ leen. xam nga pour pour ñu ñëw stade mais noonu la mën a demee quoi taw beeg yooyu. xam nga ñun gëmuñu woon sax lamb ji day am mais dañ doon ñëw pour remplir suñu suñu contrat. comme ko waxoon dañuy teel a ñëw dañuy teel a ñëw. mais taw bi ni mu doon tawee noonu gisoo stade ni mu demee. Mhm. waaw mais tamit sant yàlla noonu la ko suñu borom bëggee. Mhm. waaw di di di di di encourager promoteur bi bu baax a baax a baax. Mhm. ndax man gëm naa du nii la ko bëggee woon jàll na ni mu war a jàllee nag neex na mais du nii la ko bëgg gën bëggee woon même même ku ñu tëdd tuddee woon. Euh, drapeau bi du nii la ko bëggee woon ndax kii di doomu ndeyam per Diaw. Mm-hmm. daa yëkkati xaalis bëri jox ma ko ne ko maa ko ja maa ko jàppale sama sama sama sama doomu ndey. Mm-hmm. wallaahi doomam moo fi ñëw fii ñuy jox ko. booy pejaw pejaw pejaw kontaan ci trop te yàlla xam ne mosuñu togg ay doomam lañ. Mm-hmm. ay doomam lañ comme ñun ñooy ànd ak doomam mu yëkkati xaalis bëri jox ñu ne moo ko jàppalee doomu ndeyam loolu dañ siy kontaan bu baax a baax a baax. dama doon wax ni sax maanaam bu ma xamoon ni seen drapeau nii la neexee. damay tëgg làmb tuddee tuddee leen ko. tuddee leen ko ba noppi bëree ko. <laughs> billaay ba noppi bëree ko ndax wax dëgg fa yàlla géwél liñ naan géwél xam na teranga daal gis naa ko si ñoom. waaw mhm. ah, di leen di leen di kontaan bu baax a baax a baax. waaw loolu moom dëgg la ni ñu ko mënee laaj noonu lañ ko mënee joxe de. Mhm. mais ci biir géew bi ñu gis mystique bi bàyyi encore. làmb ji parce que yéen ñaa ñëpp ku ci nekk def nga sa dernière sortie yéen ñaa ñëpp ku ci nekk sa dernière sortie mooy sa premier grand combat ba noppi nga ñàkk bés bi. est que du loolu waa waraloon mystique bi bàyyi ci yéen ñaar parce que defe naa ne kenn bëggu ci woon daanu muy muy muy Saba maa ngi koy nuyu bu baax a baax muy yow kenn bëggul woon daanu est-ce que loolu waraloon musique bi bay sa diggante ak moom. waaw man man man mësuma ñàkk ba a indi eh, lu bari ko ndax damay préparer làmb damay préparer làmb damay sonn ci làmb waaw. di profité di waa Sokone bu baax a baax a baax. non nuyoo bi dinañ ci ñëw dama bëggoon ñu ñu ñëwaat rek ci kombaa bi. Mhm. ñëwaat ci combat bi. Euh, sa diggante du man quoi pour mystique bi noonu. Mhm. loolu du man gaayale ñoom ñoo xam lan lañ yittewoo ak yooyu. Mhm. man du Mm-hmm. xaw ma lan ak lan lan ak lan bâtiment lan ak lan la ñuy soxla si géew mm-hmm. ñoom ñoo xool lan moo leen doy ñoom ñu fexe ba indi loolu mm-hmm. mais man xam naa ne doole moom man mooy li may dimbali mooy dal sama xel non loolu dinaa si ñëw loolu dinaa ci ñëw dal sama xel te entraîné naa ku ma gis xam ne entraîné naa wax mais ñu ci bàyyi dañ naan Ardo dafa tuuti est-ce que munu yokk masse état bi mu yor boo ko gisee da nga koy xeeb booy dégg wax jooj naka la lay def non wax jooj duma def dara du ma def dara ndax euh, fi ñu teg suñu bët la waaw muy Modou Lo di ko ñaanal bu baax gis nañ ni mu jàppee si combat bi ak ni mu jàppee si mbëru parcelles yëpp wax dëgg fa yàlla. Mm-hmm. billaahi man dama bëggoon soppi doxalin sax ba ndax boo gisee ni maanaam euh, maa ngi waa CNG. Mm-hmm. waaw dañ mel ni bëgguñu mbër bu yaru quoi dañuy mel ni dañuy bëgg mbër bu réew pour ñu pour lay dagg. loolu parce que man damay def tout pour lépp jaar si yoon mais day mel ni dañuy dal sa kaw xam nga. pour nga def dara pour mooy loolu. dama man noonu. non du si combat bi mais sama combat noonu la demee damay dem barki Sëñ Fall damay bëgg a changer doxalin di de comme gars li ñu leen di tegal. Hmm. ma koy bëgg di ko teg sax des fois mais ma yoreewuñ ma noonu mënu ma loolu. Hmm. xam nga bu ma ko forcer tamit damay juum. te hmm. bëgguma di juum. mais dañ dañ may si loolu quoi damay gis loolu. gis loolu parce que nit nit ñoom suñuy papa lañ. ñun bu ñu ñëwee ñaan ñu mën a may. Mm-hmm. xam nga bu ñëwee ñaan leen rek war nañ ñu mën a may parce que xëccoo man xëccoo mënuma woo ragal gàcce moo tax yu bëri duma si dugg bu ma bëreewul sax doo ma gis si yenn bagage yi. Mm-hmm. démb dañ ma forcé invité ma. waaw di nuyu Fallou Ndiaye bu baax di ko félicité. moo waral mm-hmm. sax ma ma ma ma sóobu si ñëw. mais ragal gàcce moo tax yu bëri duma si bëgg dugg ndax bëgguma ku ma naan yamal fii defal nii ak noonu bëgguma lool. waaw ñu ñëw léegi ci biir combat bi ñëw ci digg géew ñu gis bi ngeen defee li ngeen defee ba noppi abil bi wàccee loxoom rek kutoo kut da ngaa dox ci kawam xeex ak moom ñu ci bari na nag bërëb bi moo moo doon sa avantage ci làmb ji mais nga imposé ko xeex bi xeex ak parce que gis nañu moo la sut te moo la a ëpp tuuti lan moo tax kutoo kut nga bëgg a xeex ak moom. waaw erreur boobu dama ko defoon si contre Manick xam nga ñoom ñu bëri dañoo yaakaar ni gars yi ñoom ëpp doole mais buñ dalantee rek dañuy xam ko mooy comme li may wax fi ma teg sa mbët. Modou Lo guddul rëyul mais Modou boo ko xoolee boo boo xoolee si tele bi sax doo ko xam mais boo jàkkaarloo moom ngay xam ne vrai athlète yi nii. Mm-hmm. ku si loo gudd gudd loo rëy rëy boo jàkkaarloo ak Modou da ngay bëgg a mel ni moom. ngir maanaam liggéey bi. Mm-hmm. intense bi moo la ko moo ko may. échauffement moom mooy entraînement wu gars yi gars yi dañuy yokk ay biteel mais du ñu yokk coach ah du ñu yokk xam-xam bu bëri mais ay biteel rek la ñuy yokk. Mm-hmm. waaw loolooy suñu différence. waaw man foofu laa teg sama bët quoi. lu ma si góobee nag gar pour nii ay yokk mas ni non non man xalaatuma ko yokk doole man moo ma gënal quoi tax te du ma ne xam naa ko mais ànd naa ñi ko xam te xam nañ li ma bëgg xam nañ liñ may teg waaw. xeex bi xeex bi nga imposé. xeex bi man ba may jël làmb ji. Mhm. li taxoon ma jël làmb ji maa euh, yaa ñëwoon cumukaay ba n'est-ce waaw nga ne ma nu muy demee ma ne li ta yàlla mhm. moo moo yor ndam. Mhm. moo jox ndam ku ko yor maa ngi koy ñaan ndam mais li taxoon ma jël combat bi au bi du ma ci wàññi dara du ma si wàññi dara du ma si dara loolu laay kii. Mhm, mañu kayre dañu dañoo ñëw gars yi wax man leen bu ma ko dóorut duma ko daan. Mhm. te loolu dafa feeñ si làmb mañu bu ma ko dóorut du ko daan parce que bëre ba daa ñor. bu mhm. mën kii bu ma ko dóorul woon du ko daan ndax bëre bi dafa ñor dafa mën a bëre. macha allah da gisoon na daal dóor bi mooy mooy caabi. mooy caabi bi waaw loolu laa appliqué quoi. mais ñu gis euh, bi nga li nga koy cokkaase bëgg xeex ak moom nanguwu taxaw xeex ak yow. non saa boo saa boo mébee day reculer. waaw waaw loolu loolu amaana moom noonu lañ ko yabee mu ñëw quoi waaw noonu lañ ko yabee mu ñëw tamit mooy loolu yàlla mooy may ndax maa ngi koy encouragé bu baax yàlla may ndax maa ngi sant suñu bopp. ñu gis ngeen jàppante mu force la bu bu ñuy xool bi chute bi di am da la doon imposer di la forcer di la ñuuxu parce que jàpp na ne est ce que jàpp na woon moo la ëpp doole moo tax mu doon forcer tante kele boobu. mooy lu mu la lu mu wax tamit daf ko bëre waale. mooy la m doole parce que ñëw na fekk ma école. di ma mhm. jàngal bëri. loolu ça hmm. fait longtemps bu deful quatre ans def na trois ans. kon loolu mu doon wax am na. loolu noonu am na am na mais du ma ci bàyyi xel ko xam nga yàlla bu la defalee dara nga nekk ci mbapat ba tollu benn niveau bi. Hmm. ay nit dañ lay xam te ñoom ñëw doo leen xam. Hmm. ñoom ñëw nañu école. mais li leen fa indi woon sax. xaw la moo leen fa andi woon. moo kan la woon. moo xaw kan la àndaloon. wóor na yàlla mais ki mu àndaloon sax kookoy ndaanaan. kan la àndaloon xaw ma kan la mais kooku ndaanaan la tànk yi dafa dëng nii mais kooku nekkul ci arène bi sax mais waaju mën dañuy songoo tak tak mu daan ma tak tak mu daan ma ma ne bàyyi lii li ngay def nii moom yéeme na de affaire yooyu. am nga mm-hmm. man tamit sportif la man amu problème boobu. Mm-hmm. damay bëgg toujours di di xam. Mm-hmm. ndax bëree bokkul quoi. ñoom ay mbëru mbapat lañ ñoo ma ëppoon doole fuuf. waaw ma ne ko bàyyi li ngay ni nga may duggee nii dafa yomb trop mu ne ma sa tànk bi nii. commencé wax wax séeréer wax waxu séeréer quoi ba mu waxee waxu séeréer ma ne ko bàyyi man nag dama bëgg du génn si mbapat yi comme yéen ni ngeen koy defee. Mhm. parce que man mbapat naa quoi mais fii laa yem mais dama bëgg dem si àll bi. Mhm. ndax yéen dégg naa jumbaxu nit boo leen ko gisee rek. ramassé ngeen ko. te mhm. dama bëgg di bëre loolu. wala may contre bëre boobu noonu. waaw ba ñu kii waxtaan si affaire yooyu ne leen dee leen fi ñëw boobu tamit dañ laa fa gëj boobu lañ fa gëj quoi. ok ñoom dañoo dégg Ardo dégg Ardo bëgg a découvrir Ardo di topp Ardo di topp Ardo ba bëgg a bëreeg Ardo bëreeg moom ndax Digne sax da ko doon wax zan ne ko dama bëgg a bëreeg Ardo mu ne ko non non bul bëreeg yow am yow am nga fi du bëreeg Ardo ma lay hmm. entraîné di bëgg a bëreeg Ardo. boobu boobu boobu Sawa doon wax lool waaw nee na Sawa moo ko doon wax lool xam nga. mais bu doon loo xam ne bu mooy jàngatee loolu yëpp day mel ni que. maanaam man maa xamul lu ma doon mais gars yi ñoom nekkate ñoom ñu ngi saytaan. ñu ngi lay bàyyi xel voilà ñu ngi lay bàyyi xel. mais moment bi mu la jàppee di la forcer wàcc sélectionné moment boobu ñu ci bàyyi ne ñoom mën nga koo mën nga koo sañaxal sax mu daanu. Mhm. mais nga bàyyi ko su bopp mu gën mu laa dugg. moment boobu loolu loolu mu doon def est-ce que woon risque ci yow. non est-ce boobu man dóor naa ko ba xam ne dóor naa ko gisoo sama loxo. naa xam naa ne jël na ko li ma bëggoon am naa ko xam naa ne foofu noonu lépp lu muy def du ñor lu muy forcer lay doon quoi Couteau Couture dafa bëggoon. lu waaw bëgg làmb ji jeex. parce que am na lu mu jël loo xam ne. Ah, bu soxlawul raayu. dina soxla ay ku koy xoolal ak yooyu noonu xam nga. waaw ah, des fois ñu dóor la ngay xool sax xam toj na. voilà surtout loo yooyu noonu genre mhm. yooyu. xam naa ne jël na sama jël na sama coup. Mhm. muy forcé loo xam ne ñorut. te man tamit coûte à bëgg naa jàpp parce que moo gën a wóor. moo gën a wóor moment bi ñu tànn jàppoon nga. jàpp ma benn yoon jàpp ma benn yoon. mais tamit bëgguma woon sama loxo dugg si biir ndax ba ma xam naa ne tegal sées da koy bëre ndax mbëkk hmm. lay bëre comme ko dawul mbëkk jàppante nañ noonu noonu foofu noonu amul lu mbëkk ndax bopp bi maa ngi ko téye di ko manipuler hmm. waaw bopp bi noonu laa manœuvre moom li mu bëgg du ko am ndax yaram bi yegsiwul bopp bi yegsiwul mais loxo yi daa jot macha allah waaw loxo yi jàpp waaw mu jàpp man tamit may wut fu ma jàpp amul fu ma jàpp mu forcé kele bi ma jégg ko benn yoon ba mu ko forcé waatee laa teg loxo bi rek kii ko fekk moom tamit. sa benn loxo bi dafa teel a génn daa mel dafa teel non loxo bi duggul benn yoon. ah duggul duggul benn yoon. duggul yoon hmm. te te day bëri wet quoi dafa dafa mën si dafa aay si wet. waaw loolu tax man ma jiitu ko foofu dama ko jiitu. moment moment moment bi mu lay tegal seize lu tax déclenché wu loo mbot bi. non foofu mënuma mbot parce que fi fi ñu demee la côté bi ñu demee la quoi. duraat la la yóbbu. waaw te duggul bu doon dafa dugg bañ taxaw jooñ nii boobu. bu ma bëggee yóbbu nii damay bañ pour dem nii. Mhm. wala may dëgërante ak moom foofu noonu mënoon naa forcer dem mais loolu wóorut. Mhm. xam nga lu tax wóorut bu defee contre kele bu ma yóbbee nii dafa mel ni sa combat li li li li mu la def nga nangu ko moom la caat fois def alliance Balde mu bañ forcer ko. ba sud ba am. boobu seetaanu ma ko nag. ba léegi nii ah, seetaanu ma ko waaw ndax ins maa ngi woon si samay business quoi. mais nga daan ko jël bu rëy ñu ci bëri nag euh, bett nga leen ci combat bi. ah yàlla baax na dinaa leen yàgg a bett te damay ñaan yàlla di leen yàgg a bett parce que man xam naa sama bopp ñi ma yàgg a topp xam nañ ma sama tur moom ma jiitu si làmb. est-ce amoon nga amoon nga amoon nga yaakaar di nga ko daan jilu boobu. ah man moom bu taxawoon ñu bëri. Mm-hmm. man ma bëree ko man ma bëri. Mm-hmm. Ah, loolu mu doon tànte amaana sax noonu laa koy daane. maanaam bu taxawoon nga bëree yow amaana nga daanee ko jël bu mel noonu. waaw. nga daan ko ñibbisi. gars yi lu mu wax. waaw gars yi mooy loolu sant nañ yàlla kontaan nañ waa koñ bi tamit dañoo yàgg a sonn. Mhm. mooy loolu dañoo yàgg a sonn ci man quoi ñu bég wax dëgg fa yàlla fii ba Mbour fi ba Sokone xam nga. jingiri non gars yi gars yi laa wax waa làmb lu mu wax. waa làmb waaw waa làmb ñu ñu ngi wax rek. làmb moom mooy loolu. waaw bëgg naa qualifier. non déet déet déet <laughs> ki bëri démb nu mu tudd Mor Kankang ñoom kankang ak sama papa tonnerre tamit bëgg naa mu may ma mu may ma sens sama papa Tidiane Faye bëgg naa mu may ma sens ñoo ñu bëre. non defal ndànk defal ndànk defal ndànk xam nga tey mënoo daan Saba. mënoo mhm. daan Saba xam nga. nga ñëw koñ bi gaa yi toog nii ngay laaj ay ay kolifay ay tonnerre Ada Fass d'accord Ada Fass la daan Ada Fass la daan kolifay mhm. mais tamit nag am na yenn adversaire yu gën a yu gën a yu yenu maanaa ay kolifay yi nga fay wax nii Ada duñ la jël. bu dee amul combat amuma combat te looloy métier nañ ko neexal rek làmb rek. billaahi làmb la ko la joxoon aar ko la joxoon qualifié ñi nga jël avance qualifié. li may modifié li may mobiliser du ko mobiliser. yàlla xam waxuma waxu wàllu mobilisation de xam nga gars yi topp la yóbbu na sat yóbbu laa la bëgg a wax waaw bu dee si côté boobu noon li may mobiliser di ko mobiliser man ñi ma ñi ñi ma yaakaar topp sama ginnaaw dafa bari. tos du ma leen foowee qualifié nga Koli Faye sama papa tonnerre mii nii Onde la Food Tidiane Faye sama papa Tidiane Faye bëgg naa mu ñëw ñu bëri waaw sama papa kii tonnerre. waaw Adama Adama da nga lay xool sax fi nga fi nga fi nga làmb dafa sooy est-ce woon xoolaat ci yeneen booy mais ñan ñoo fi nekk. non mais man dama gis benn combat boo xam te ni combat du ko dàq. Hmm, sa digganteeg caat daaw dafa loolu làmb dàqu. <laughs> ah waaw mais Adama nañu waxante dëgg. boo yaa daaw dafa làmb du ko dàq. ah diggante mag Thiat Daouda Fall làmb du ko daax diggante moog Liss Ndiago làmb du ko daax. Thiat Daouda Fall pour dire vrai quoi. ajal micro bi bu baax. Thiat Daouda Fall pour dire vrai. waaw Thiat Daouda Fall mënuñu bëre. parce que da ngeen da ngeen yaa Thiat da ngeen tolloo ci taay. yow yaa ko nduroo. lépp de mais yow WhatsApp. bu baax mais yow yaa gis ma dugal every day. waaw mais loolu du ci ah du si dara. non du yaa ngi fi léegi wax na ma bëgg naa mbañikaay ak ñoom jéen dama leen sopp te yaa ngi bëgg ak ñoom. waaw loolu boo ko dugg si teewul war ngaa mën wa ngeen mën a laal. géej waaye every day ñooy ñooy bokk fu ñuy nekk. ku ñu mën a fay trente millions ñu bëri. non loolu du ci dara. trente millions ay xale ngeen ñu bëri. non déet waxal man bul wax ak man. non trente millions ku ñu ko fay ñu bëri. barki sëñ Fallou ndax xaalis lay wut xaalis laay wër. loolu mooy mooy bëgguma bëri moom. ah mais loolu. moom 30 bu ñu waxantee dëgg. promoteur du 30 millions di que daa am luñ lu ñu seq lu ëpp too lu ëpp làmb. tey ji boo si duggee pour teral sa ndey pour teral sa baay. moom ñi ma booleel ñu may teral dafa bari. ah sama ngor waruma may sama taxaw fii di wax si loolu quoi. sa diggante Liss Ndiago Luis Ndiago non kooku man waruma ko xool quoi wax dëgg fa yàlla. ah mais lu tax Liss. ajal mi ko bu baax. non non waruma non mais Liss nag bi mu fi jóg sa mag a ko daan da nga yóbbu sa mag sa mag daan ko digganteeg Tapha Mbeur te lu ko metti waa paase la ko teg sa diggante digganteeg moom làmb du ko daal. Euh, Liss moom nice quoi xam nga rek mooy loolu. da nga xew Liss Ndiago. Liss nice. c'est man dama bëgg lu metti quoi <laughs> luñ naan dana koy rey. mais Liss jóge ci defet sa digganteeg moom. xam nga ne mu lu yomb rukk bu sedd moom du ci am. man moom bëgguma lu yomb wax dëgg fa yàlla quoi. ma lu nañ ma jox si booy yu tàng yi ñu ne ñoo fi ne. yan booy ñoo tàng limal comme que boog nee nga doo bëgg caat daaw dafa nee nga da ngaa xeeb liis njaaw liis. booy bi neen da ngaa xeeb dama bëgg yéeg dëgg fa yàlla bëgg yéeg. ni sama moroom yi yéegee daa am ñoo xam ne waaw maa ngi seen tànk te ñoom dañoo dem te dama bëgg dem loolu rek laa bëgg yàlla. limal ma ci ñett Hmm? gannaaw gannaaw nee nga xeeb nga ñi ma wax. ah mooy ñi ma la wax rek ku si mel ni kii. Koli Faye. de ak Onde le ak Onde le ak kii sam papa Koli Faye papa kii nu mu tudd. sam papa Tonnerre. waaw may ma ñu bëre. ak sam papa kii. Euh, borom ay papa lay di téegir waaw mu bëgg bëre sam papa yi ñooñu ma lay wax kenn gënu leen tàng. waaw man dama bëgg a bëre ak ñooñu ñooñu dañ fay am lu ñu fi def waaw te dañoo toll foo xam ne ñooñu ñooñu ay nitu làmb lañ dañoo dundal làmb am na ñoo xam ne dañoo dundee làmb mais ñooñu dañoo dundal làmb waaw dama bëgg a dundal ànd ak ñoom ñu dundal làmb waaw dama bëgg wane sam bopp waaw ma jox si waaw hmm. sam yi ma bëre diggante diggante diggante diggante euh, kii yi nu mu tuddee waay euh, ki nekk Pikine merci beaucoup Jacob Baldé ki euh, kii Papa Boy Djiné Jacob Jacob Baldé ak Papa Boy Djiné man combat manique bi bi pour dire le vrai mhm. man kii laa bëggoon kooku noonu nga Jacob laa bëggoon Jacob Baldé nga bëggoon ba yàlla xam na ko barki maam Cheikh Rafal alaaji Cheikh on na maa seede bëggoon ñoom ñaar loo wax seen diggante ku hmm? daanu ku daanu non man amuma amu ku si kii quoi ndax ndax man man li ma def du kenn si ñoom am kenn si ñoom ku ko def waaw kon duma ma taxaw fii naan leen ay nii dañuy bëgg ñu bëre ñu bañ ñu dem xoole leneen ñooñ du ma leen neexal quoi soo amoon kàddu yu mujj. kàddu yu mujj du ma ko amagum de ndax ñu jàpp si làmb yi dafa bëri <laughs> waaw di gërëm sama gaay yëpp bu ma limee rek juum. Hmm. gaay yi barki maam Serap Fall fii lañuy fanaan muy taw. muy naaj fii la ñuy nekk barki sëñ Fallou te lenn daf ma neex si ñoom ma leen si gën a soññaat muy noo violence bi ñuy doxee soxla luñ wuñu alalu jàmbur barki sëñ Fallou te gëm naa ni sax axlu làmb yëpp noonu la ñuy doxee ñi si bokkul ñoo ñëw di saltel rek mhm. mais daal xaw ma ngaaka lañ ñuy woowee xawma ma mais moo ma gënal lool noonu ñuy wax na ñu naan nante lañ xam nga mhm. ndax nante ngaa xaw ma ngaaka la ñuy wax xaw ma bëgg na bëgg na bëgg na lim moomal boppam daal te bëggul alalu jàmbur. te mhm. bu ñu sañoon ñun ñëpp ñu wut lu ñuy ñu ñuy jox suñuy waajur yi mu doon lu ñuy lew. Mhm. ñu moomal ko suñu bopp xam nga ñu bañ a dox dara si violence ndax réew mi toll na foo xam ne ñëpp dee. Mhm. xam nga ñëpp a dee ngay laal nit rek mu dee xam nga ñu naan la eh, yaa ko rey fekk dee bu yàgg. xam nga yooyu buñ koy moytu rek yu bëri day xaw a wàññeeku ñuy def suñu xel ni maanaam ki ngay saagaak ki ngay war a indil benn tolof kooku sa deret la ndax yéen a bokk loolu mënut a muy Sénégal. xam nga di ñaan si réew mi jàmm di wax ñëpp ñu si jàpp sama gaay di si di di di remercier Lat bu baax a baax a baax a baax. Mm. Lat Diop jàpp na si duñu duñu jug si di ko remercier Lat Diop ak Waly bu Lat xam nga Alima bu Lat Diop Daba Seck bu Lat Diop xam nga Cheikh Omar bu Ardo waa du ma ne Cheikh Omar bu Lat Diop mais Cheikh Omar bu Ardo Cheikh Omar bu Inte 2 Binet Ndoy Aminta Ndoye Aminta Ndoye ak Binet Ndoye yëpp sama yaay boobu tamit dafa baax si man. Hmm. mais Aminta Ndoye dafa ñàkk ñaan daf ñu boo boole nañoo madame la ministre madame la ministre yëkkati lu takk jox ñu moom mu yëkkati waat xaalisam jox ñu te moo ñu njëkkoon joxaat jënd si tigéey ba pare yëkkati waat xaalisam joxaat ñu. xam nga dëkk si koñ bi di fi def lu nekk wax dëgg fa yàlla suñu bàjjan la suñu yaay la bu baax si ñun wax dëgg fa yàlla waaw kër ñoom baaba siis mu V6 xam nga nga wax town day takk jabar sax ñu ngi koy souhaité waaw samedi ah waaw samedi la réception bi town daf may may di may sol yu bëri moo ma koy may wax dëgg fa yàlla ak SOP 222 Xaarim Amar sa Sandaga moo moo ci mën wàllum aar bu dee Sénégal nga bëgg a solu rek Sénégal nga bëgg solu doxantul ba foofu Adama sa sapo moo ci mën wóor na yàlla yàlla xam na ko mais Ouzin da nga war a laalal costume nag da nga war a sol costume <laughs> yow costume waa wasaare àdduna dafa war a xam ne yow yaa mën ci costume ak chemise waaw yaa koy ñëw waaw di nuyu jaag bu baax dafa ñëw euh, moom jour boobu dafa doon football final la doon football ah. demi la doon football. Mhm. te moo nekk président ECHO mais dafa yëkkati xaalis bari ñëw ne ma man bëgguma ko woon wax dara ci wàllum làmb ji ndax yu bari yu may sol tamit moom moo koy ñëw. Mm-hmm. mais dafa yëkkati daf dafa waxuma ko dara mu xam tamit nu mu demee ba dernier moment mu woo ma ne ma ana bi mu mu ne jox mbenn benn ma jox ko mu jox xéewal loolu tamit doon lu réussi ñun day wane ni toujours daal bàyyiwuñu ba mu ngi bàyyi xel mm-hmm. waaw te moom dafa yàgg ñun daal ba dara dul dara la jàkk waaw di ko wax yan bii nii mu yenu yàlla na ko suñu borom oyofalal lim si bëgg yàlla na ko suñu borom defal lu kawe njortam ndax dafa bëgg dafa bëgg réewam mm-hmm. dafa bëgg dëkkam waaw di wax di woowaat waa xippi bu baax di leen gërëm ndax lépp tamit ñoom la ndax fii laa dëkk. Hmm. waaw mënuñ waaw noonu la demee vendredi la final ban. écho film bi ah waaw écho film bi di ñaanal waa écho bu baax a baax ñu dóor daan aado xam naa ni fii mi nga nekk mais dama lay gagné de mooy sama coach bi <laughs> sama coach la sama coach la sama xarit la mais fa lay football ndeysaan nit ku baax nit ku ñàkk ñaan hmm. koo xam ne waaw dafa mën a jàppale nit te yàlla rek tax waaw Ado ça fait l'occasion koy gërëm ah docteur Ibra Mbaye moom tamit da siy jàpp bu baax a baax waaw sama grand xaadim naar ak naaru Paris bi waaw doomu ndey Modou Lo da siy jàpp bu baax a baax a baax waaw waay waay bu ma bu ma bu ma kiiwee de leen indiwaat <laughs> gars yi dañ si jàpp bi laay bu ma limee juum xabaan Mauritanie la jógee indil ma góof yoo <laughs> xam nga may lekk ci làmb ji mooy loolu. nii rek la mënoon demee daal waaw di wax kontaan nañ sama grand sama papa Jibi Kayta dafa nekk si sànce mais teewul wallahi di yëkkati xaalisam di ma jox di xool ndax maa ngi lekk ndax maa ngi naan ndax maa ngi entraîné. Cheikh Omar Mbaye ñaari saal la ma la ma fayal ñaari saal ne ma del dem boxe fii di dem di musculation fii waaw xam nga ay ñoom buur siin jóge ba ba ba ba ba siin ñëw. démb lay soog a ñibbi yàlla xam na ko xam nga waaw maire yi waa waa groupe waa nopp waa nopp sa jëkkër waa nop sa jëkkër ay ñoom amis yi xam nga Fatou Goudiaby mi ngi Casamance mais xelam yëpp a ngi fii ay ñoom amis yi moo togg ceeb bi ay ñoom xadi maire xadi mbaxalu soos may njaay falaa añee léegi nii falaay defee lépp xam nga dañuy sonn si ardo hélas bu jën duñ ko fàtte moom suñ papa mooy loolu yi sax bëgg ko sopp ko waaw di nuyu waa Saalum gépp rek waaw waa Saalum waa Louga baa Djili buñ ko fàttee buñ ko naree fàtte yàlla nañ faatu Baye Djili ku si mel ni baa Djili waaw sama papa bu baax a baax di nuyu Abdou Abdou Karim sëñ Abdou Karim bu baax a baax mi dëkk Yoff ñu nuyu baax ak sëñ Abdou Karim borom Makarimal Axlaa di nuyu leeram sëñ kaadim di nuyu leeram sëñ Muhammadul Mbacke bu sëñ Abdou Karim ñu ngi leen nuyu baax a baax ak sama waa ëtt ku si mel ni maam Modou Moustapha Fall mi yannu yan bi waaw ñu ngi ko koy siyaar bu baax a baax ndax bañ ne suba a làmb ji ginnaaw suba la làmb ji laa fa demoon samdilaa dem jeudi ah laa demoon Touba dem ba xayra yàlla xam na ko jóge woon si saa Touba jaar fa mu dolli may ñaan bu baax a baax a baax a baax waaw waa kër gi ñëpp génn wax dëgg fa yàlla ñaanal ma ñeewantal ma ne ma ainsi dama laa yërëm sax billaay yàlla xam na ko. Hmm. waaw waa Xayra Fall gépp rek di wax gaa yi ñu waaj màggal gi màggal gi ñëw na. waaw sama coach Zane ñu ngi koy dafa sonn si làmb yi chaque jour mu ne ma yaa ma mën a siggil. Hmm. day bàyyi jabaram yeewu quatre heures du ñu ànd dem entraînement mu ne ma yaa ma mën a siggil. Hmm. yaa mën a sagal. ndax booy bi da laa menacé menacé ma <laughs> ma ne ko bul wax dara dinaa la siggil barki suñ fàllu yàlla baax na yàlla kenn la gars yi jàpp nañ si làmb ju baax a baax a baax. doon loo xam ne mënu ma ko bu ma ko bu ko defee sax du ma gor ndax sama papa ngañ ak magam kodde ak maasuur rakkam seen waa kër ñëpp wax dëgg fa yàlla dañoo sonn ci làmb ji dañ see sonn bu baax a baax a baax ñooñu ma leen fàttee rek du ma gor waaw day bàyyi jabaram di dox rek topp ardo waaw ñu ngi koy ñu ngi ñu ngi jéggalu soxnaam bu wér a ñoom ndëkumaan sama coach kona xam nga waa Salba ñëpp wax dëgg fa yàlla waaw ñëpp maa ngi leen di waaw barki sëñ Fall waaw dama daanu booy ah ah gën a gën a cher yëkkati pënd bi booy eh booy indi fi bu cher ba ma ñoddu indi niga man ma gën na cling ba ma ñoddu trim dajul màcc booy ndax dama fresh booy ah benn benn la news <laughs> waaw gis ngeen mbokk yi tey noonu la woon aaro leen seet si woon waxtaan ak moom ci làmb di leen jox dig daje kontaan nañ ci yéen ba beneen yoon. Omzo bu Garga Mbossé. ñaa ngi koy dégg. Omzo maa ngi koy dégg. jàpp na ci làmb ji. <laughs> waaw Omzo parcelle dong ko waaw dafa jàpp ci làmb ji bu baax a baax a baax a baax. ak euh, Pape Pape Gueye bu bu Papa Sow. Pape Gueye wallaahi ñàkk ñaan ak assurance bu Papa Sow. Mm-hmm. jàpp nañ ci làmb ji bu baax a baax a baax. waaw ñooñu ñooñu mënu ma leen fàtte soo kaana ñu ngi koy bégee mooy parcelle soo kaana lay tëjee. waaw so kaara di leen jox dig daje beneen yoon ak yeneen ba jaa ngeen jëf